moo doonoon jëriñ aw askanam tonni seen mbalit ba noppi utal liggéey ay ndaw xalaat boobu la jëmmal ci projet jël ay risque dem ñu daal koy financé ci entreprise bu mu tuddee seen environnement mu am ay kayitam yépp fukki sareeti mbaam lay doon bu ne ñaari nit ñoo ciy liggéey ak ñeenti superviseur muy ñaar fukki nit ak ñeent ñoo xamante nii moo leen di fay weer wu dee DER financé ko beneen banqaasu gouvernement bi financé ko moo lebal xaalisu boppam gone yi ci leen entrepreneur wutal seen bopp xëy moom mu wutal boppam xëy wutal ñaar fukki nit ak ñeent am xëy lépp doon dox di jaar yoon ci politique tabbee ndax yéeyaay dañ ko jàppale ci fonds national d'action pour l'emploi nga xam ne 1987 ba léegi mi ngi fi di jàppale yeneeni projet directeur de l'emploi bi di politicien dëkk njaareem Dame Diop di politicien dëkk njaareem ñi ñuy wujjeel ci politique nag ñoo jëfandikoo lool nag ba lor ci Baara Diop mook projet bi ñu jël ko di leen ñaawal di leen mbëlee di yàq seen der di leen reetaan ci ñi nga xam ni ci réseaux sociaux yi képp la ñuy làqatu di jëf seen jëf yu ñaaw mënoon ngeen a song Macky Sall wala ngeen song Dame Diop wala ngeen song directeur de l'emploi ñoom seen affaire la mën nañ ko lijjantil seen bopp am nañ moyens yi mën nañoo défendre seen bopp te itam poste yi ñu yor war naa mën a tax ñu wax leen leneen waaye gor su mënul dara di góorgóorlu di jóg ko daanu ba teg lu mel ni ñu yàq deram yaxeet ci ñaari fan ci internet bi jëkkut jaaduwut ba ngeen di reetaan mëneen ngeen ko yemale ci TER bi mënees na koo ree lu jege junniy milliards lañ ci def te fee mu toog jógu fa waaye seen environnement du lu ñu war a ree du lu ñu war a ñaawal du lu ñu war a këll-këllee lu ñu war a rafetlu la lu ñu war a tàccu la lu ñu war a kañ la kenn warta jël photom di ko taqale ak ay photo TER jamono boo xam ni waxtaan wi ci réew mi yépp mooy nu ñuy def ba wutal ndaw ñi xëy baara moom dafa bokk ci war a siggi wutal na ñaar fukki nit ak ñeent am xëy ndax ñaar fukki nit ak ñeent ñiy liggéey ci projet boobu ginnaaw bi ñu leen ñaawalee ci àdduna yépp dinañ amati fitu di ci wéy ndax itam kër ya nekk ca njaareem dinañ nangu bokk ci projet bi te ñett téeméer rek lañ leen di laaj weer wu nekk ngir ñu tonni seen mbalit baara ak ñi mu àndal bu ñu lajjee ndamal kan lay doon baara Diop model la ci jeunesse bi président de la république bu ko recevoirul deer jëndul prem bi wala mu dolli ko loo xamante ne ni dina mën a yokk kenn waru koo teg gàcc moo tax li la war mooy nga góor góorlu góorgóorlu siggitewey bañ a déglu ñi nga xam ne nag duñu dem te duñu bàyyi kenn mu dem dafa wax de. tënk na wax dafa wax de. ma ko mu tënk na wax ji. et puis mu laal ñëpp nag. waaw ak keneen ku nekk ci euh, leneen loo xam ne yaa ngi ciy dox ñii di ko gëm ñii di ko bañ a gëm da ngay gëm sa bopp rek nga gëm li ngay def rek nga continuer dem. c'est très important Aba yore sareetu mbaam di revancer mbalit moo gën yor sa internet di xas gor buy liggéey ñuy ñaanuñu mbëbës ay goro a fay liggéey. Hmm. yor seen njaboot ay gor ngi jaay journaux yor seen njaboot kenn ku ci nekk ca la nekk ca bàyyi nit mu nekk ca la mu amul réew mooy dem ci àdduna te amul saret fas wala mbaam buy ramasser mbalit. Ndiaye Sénégal rek nga gis nit ku góor góorgóorlu di jéem dara ba nekk ëllëg lenn li nga nekk bu buñ la bëggee xas ca la nga doon jéem ca nañ lay jàppe di la xas tey jii ku fi bëgg xas rek wax ko ci commencement ngay xas te la mu doon commencé ak la mu nekk tey boo moytul sax la mu commencé moo gën lim nekk tey. te lim nekk tey la mu commencé ko def tey jii ku bëgg a xas benn abaa exemple danaan ko jaaykatu kafe nga woon. wala wala. fukki jaay nga doon jaay wala li nga doon jaay alors que loolu moo ko def tey lii mu doon je pense que nit ñi dañoo am problème mu nit ñi li ñuy commencé ba li ñu nekk tey. xam nga man ngaa bu laa dëkk. ngaa boobu nga njaareem ci dëkk kaw yi xam nañu ñun njaari mbaam au delà de moom baara projet bii mu teg. ñun xam nañu njaari ñun mbaam sëf. xam nañ ko xel mais heureusement ba moom it xam na ne bu la mbaam wéqee nga wéq ko yéen a maam tamit parce que moom daa yàgg ci ay mbaam moo tax ma ne la xam na ne bu la mbaam wéqee nga wéq ko yéen a yem te ñi topp ci ginnaaw mbaam di wax loola fa wax ku topp sa ginnaaw moo xam sa doxin bu ñaaw mhm. ah, kon baax sa tuuti kon moom mu ngi ci kanam mu ngi ci kanam ak nekk ci ginnaaw waaw waaw xam nga boo nekkee ci ginnaaw mbaam moom daanaka mbaam la tane dëgg la ah, jeex na am doxal <laughs>